أزبر ضيغم ما بدر تم في دجى الليل أضاء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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الله يحفظكم يلا يلا بولة جبوت القرآن أمين يلا يلا سخل ينيب تلقي القرآن ديكو جنجل ديكو جنجل ديكي دف سنو كتن ديكي دف سنو وقت ديكي دف سنو ألل يلا يلا بولة جبوت القرآن الكريم تبامل أمين يلا يلا بولة جبوت القرآن يوم القيامة yal na nu yàlla boole ci njabootu alquran ca aljanna amiin jëmm yi fi teew yépp xamuñu ñépp saa borom yàlla xam na ñépp yal na nu bindalab liste bu yowmal qiyaamee mu rappel ñu ñun ñépp ñu dugg aljanna mu ne ñu udxulul jannata antum wa azwajukum tuhbaruun yàlla mën na ko yàlla ko yàlla defal amiin di sant tey ñaanal bu baax su may ñaari wayjur wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira bépp araf bu ñu jàng wala jàngale ko yal na yàlla yokku leen ko tiyaaba adduna ak àllaaxira di sant samay mbokk ci wàlli baay nga xam ne kenn ci sumay baay desut ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa kireen doobuur saafeen gépp waaye di sant sumay mbokk ci wàlli ndey waa bambiloor ak li ko wër kenn desut di sant bu baax a baax dëkkandoo yi waa koñ bi waa quartier bi waa mbuur gépp ku ci nekk ubbi këram daal di koy jox gan yi ñu génn ci néeg yi jox ko gan yi jël ay togg jox ko gan yi yal na yàlla fay leen yiw amin lu ci way def yal na la ko yàlla fulal di sante bu baax mbollem seen al qur'aniyya fi Sénégal al qur'an yi nek ci réew mi yep yépp nu ngi leen di ziyara te di leen sante bu baax ànd bino ànd ak ahlul quran di mur waye ànd ko ak sunu jëm ju xébu ji reyna lol dale ko ci ahbab ali li qari jamiyati ahlul quran bi mur jamii al jamiyat allati hadarat hina yal yalla yàlla dëgëral al quran yeb moy association qur'an yeb yi nga xamne ñom ñoo nek ci réew mi waaye mbooleem kilifa yi nga xamne ñoo fi tew yal yàlla fay len yiw jaadu na te yell na magum jëmm sax mu toog ci sées bii mu tiit rawatina xale bu ndaw yàlla dogal na ci réew mii yàlla nattoo na ma ñi ma fi gën a xam ci métier moo xam ne ñang ca xam ñëw gën a bari mbooloo mii lu mu néew néew maa ngi xàmmee lu mat juróomi téeméeri nit ñu mokkal alquran ñu ngi ci mbooloo mi yooyee kaang ak yooyee fóore ku jàkkaarloog ñoom tiit di wax ne ku ñu limul wala am teraanga joo def ci limuñu ko wala ñu waroon laa teg sa palaas teguñu la ko muñ ko ngir jëmmi alquran ju neex ji nga déggee fii waxtu wi tënk nanu comme nim ñuy dalee ak mu nekk ñu ne woon dinañ barkeel loo ne alquranu ruuxul umma إن الكتاب الذي لا ريب فيه ولا نقص يعتريه هو القرآن العظيم فهو روح الأمة به حياتها وعزها ورفعتها قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا mbokk yi téere bi nga xamante ne amut lenn luñ cay sikki sàkk téere bu nekk ak bu sa sëriñ mën a bind su neexee nit mu taxaw ne gëmuma ko waaye téere bi nga xam ne kenn du ca sikki sàkk mooy alquran téere boo xam ne la muy wax lépp dëgg la mooy alquran téere boo xam ne mbaaxam kenn du ci sikki sakk mooy alquran تيري بو خامني ناموي راوالي ديت ادوناك الاخره موي القران واي تيري بيغا خامني مو مات سي بور ييب موي القران كون يين خيت يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام دي لن واخ نه سينو كاوي اك ييكتي كو سي القران لا نيك سونوك اونور سي القران لا نيك سونوك مباخ سي القران لا نيك سونوك دوندو xam nga tey ji ku nekk ci ñun dafa am ruuxu bu nekk sa jëmm ji moo tax ngay dund ñun ñépp nag soonu boolee lay tax ñu dund ruuxu ba nga xam muy batari bi jox courant ci jëmm yëpp mooy alquran yàlla nee ne wa kadalika awxayna ilayka man maa wàccee ci yow ruuxan ruux mooy lépp luy tax dara mën dund min amrina ci ndigal ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى إيه؟ إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض بقي والأمة بغير القرآن أمة هامدة لا روح فيها ولا حياة لها ولا وزن ولا قيمة وخلى leen ma بفنك ak ñay waja nek nekk fek alquran amul baat ci rew mi ummatun hamida xam nga umma hamida moy suuf so xamantene dafa bekkoor lo fa jiw du sax moy lo xamantene daram doxul dafa dafa de dafa faatu moy lu fënëx xet bi alquran rek kay tax ñom ñu nekk xet لكي دقل تدي كوسا خل دقل لين ما في هذا السياق القرآني يلا سنو برام دفن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني نت الجن جن لتخ ما بند لين بور نيو جامو مركتخ نيو نكو نن لن كوي جامو من وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين digeluma len ludul ñu jaamuma waye nan ma selalal diine ji gay wa legi nu ngoy selale ñu ñew ci yonent yalla muhammad في الحديث الصحيح الذي أخرجه البيهقي الإمام البيهقي دفعي نتلي حديث بولير نخمن النعمان بن بشير موكو نتلي هذا صحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس بلغوا عن رسولكم هذا الحديث su ngeen àggee kër ga jottali leen ñu ñëwul waxu yonent yàlla muhammad mu ne afdalu ibadati ummati jaamu yàlla bi gën ci xeeti jaamu yàlla yi sama xeet di def dégg ngeen ma xee jaamu yàlla yi ak bari ak bari su ñu ñëwee ci diine rek jullee ngi fi koora ngi fi aji màkk ngi fi suñu ñëwé ci yu baree bari ci turuq yeeg wa ma ila dalik xeetu jaamu yàlla bu nekk ngi fi yi bax bari na lool waye so leen dajalé ñoom ñépp war ci jublo jaamu yàlla yonent yàlla muhammad nee ne afdalu ibadati ummati qiraatu alquran jaamu yàlla bi gënte nit war ko jaamu yàlla mom moy jàng alquranul karim motax sa borom yàlla bamuñu bindé ñu bindee andi ñu ci àdduna bàyyiwuñu ku nekk di démé xelam dafa yebal ay yonent ñu ñuy léralal nan la ñuy jaamoo yàlla rusulan mubashirina wa munzirin li alla yakuna nas ala hujjatun ba'da ar rusul dafa jël ay yonent di len yónni dale ko ci adam wàcc ci nuh idris muy avancé di avancé ba nga ag ci ño xamantene dañ leena rey ci yoonu yàlla yaxyaa mi abu taaha doon wax fii ci suba yonent bi nee na jaam bi mosta def bàkkaar bu ndaw bu mag yaxyaa la yaxyaa danoo dagg bopp bi ngir fitnaay jigéen dafa am buur boo xam ne dafa noboon doomu sëram yaxyaa xamal ko ne loolee yàlla daf koo tere ñu bàyyi ba ca feet fitnaay jigéen ndaw si sol sol bu ko neex mu bàyyi ba buur bi màndi mu fecc ci kanamam buur bi bëgg koo takk mu ne ko lan nga bëgg comme cag ca premier cadeau mu ne ko bopp yonente yàlla yaxyaa laa bëgg nga dagg ko andil ma ko buur ba yónnee ñu dagg bopp yonente àndil ko jox ko ndaw sa can Zakariya may baayam ibnu Kathir dafay nettali ci téeréem ci riwaayaat yu ñëw ci wax bub nu mu nabba ñu ne Zakariya may baayam daq ji dañ ko ay nitam ba mu gis benn garab mu ne ko yow garab tee nga maa làq garab ga daal di ŋaang mu dugg ci biir gaaye jël si mooy si yi nga xam ne moom la menuisier yi di jëfandikoo ñuy dagg garab gi di ko dagg ba commencé àgg ci yaramam Zakaria siggi xool yàlla yàlla nekkoon ko la in lam yatawaqqaf aniinuka la uqallibanna al arda wa man alayha soo bàyyiwul onk ma wëlbati suuf si ca ñàkk nekk yonte yàlla Zakaria ci riwaaya boobu dañ koo xaaj ci digg bi am ci koo xam ne dafa xiif خيف يالا ديكو خول بامو فاتو موي ال يسع مي نيو القران الكريم نبي مات جوعا موتاخ يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع الا موضع لبنه من زاويه فجعل الناس يطوفون منه ويعجبون ويقولون لولا هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين يوننتي بنانا سما ملوكان أك يوننتي مجي ملني واجو خمنا دفجل أي بيرك تبخ كرم بمو تبخي بكر دي رفت لول waye am ci beurep bo xamne benn birik mo fa manké mu am benn gaay di nan kër gi rafet na lool waye tourou bi moko yak nee ne turu bii fatt loolu nee ne man la yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wa ana xaatamu nabiyina moo tax ñoom yonente yépp ku ci nekk sa message da doon tënku ci say nit moo tax ñu daan wax yaa qawmi ku ci nekk sa message da doon yem ci ab jamono waaye yontu yàlla muhammad ba mu ñëwee yàlla ne ko qul yaa ayyuha nnaasu inni rasulullahi ilaykum jamia nel ma gaa yi ñoom man maa la yónni ca ñoom ñépp inni rasulullahi ilaykum jamia tabaraka alladi nazzala alfurqana ala abdihi li yakuna lil aalamina nadira alquran dafa ñëw pour waar si ñépp moo tax yonent bi ne wa kaana kullu nabiyin yonent bu nekk yubaatu ila qawmihi xaasa wa buistu ila annaasi kaffa yonent bu nekk yàlla daf ko daan yónni ci ay nitam rek waye man yàlla yónni ma ci doomu adama yeb moo mbok yi lan taatiya ba'da muhammadin risalatun ukhra amul benen message buy ñëw sama serigne a ngi nee na déet waawaw walan yaatiya ba'dahu rasulun akhar ku wax ne yonente nga ginnaaw yonente bi waxoo dëgg waxoo dëgg takbir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 لن تأتي بعده رسالة أخرى أبدا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين la ilaha illallah yàlla nee na ko yonent bi du bàyyu kenn ci yéen li fi nekk maa ko yónni te moo mattali yonent yi la ilaha illallah xaaral ma dugg ca la ma ma ne lan la aaya bii mu ngi ci sóoratul ahzab sóoratul ahzab mooy sóorat 33 day wane ne yonent yàlla Isa xam nga moo mujj ci yonent yi avant yonent bi bi mu amee 33 ans juste la ko yàlla yëkkati mu dem asamaan ba ko gaa yi bëggee rey aaya bi mu ngi ñëw ci saar numéro 33 allah yemuma foofu aaya bi ubbi leen téere bi ana kan foor yi mooy aaya numéro 40 ah. yonent bi amee 40 ans la ko yàlla yónni kon yonent bale dem na yonent bi jeex na ah. xaatamu allah takbir ما شاء الله وتحمل لن أه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله أكبر لا إله إلا الله أن أقيموا الدين mune ne maa yonalal yoonalal yoonalal naa ci diine ji shara alakum min ad addiini mo len yonalal ci diine ji ma wassa bihi nuhan diine yonti yàlla nuh dafa dugg ci l'islam wa maa wasaynaa wa maa wasaynaa bihi nuuxan walladi awxaynaa ilayka ak li ma lay yónni yonent yàlla muhammad wa maa wasaynaa bihi ibrahima la mu joxoon ibrahima mu ngi ci lislaam wa maa wasaynaa bihi ak nuux islam Isa mu ngi ci biir islam jubluwaay bi yëpp mu ànd leen murit beek tiijaan beek ibaadu bi an aqiimu diina taxawal leen diine wala tatafarraqu fiihi bu ci taqalikoo allah lan moo waral coow leeg xeexante bi ñep ànd nañ ne juróomi julli mo am ànd nañ ne ben yàlla mo fi ne ànd nañ ne ben yonenti mo fi ne lan mo waral takliko bi allah lan mën na noo wuute ci masala waye bu kenn tuumal sa morom bu kenn def sa morom yéefar Qurtubi moy sama serigne Qurtubi imam Qurtubi waaw naanal ndox tuuti gars yi mën nañ mën nañ mën nañ catu sama donga mu fëtt waaye li ma fëtt loo yombut naanal ilmi huna bal huwa ayatun fi suduri alladina utul ilma ma yajhadu biha illa ma sha allah diine ji ñoo ko bokk wallahi ndeysaan moo tax hada alquran di wax noonu l'islam yëpp ne mënuñ ci alquran dara nañ noppalu ay siècle ñu ngi dox pour yàq alquran yokku ci wala wañ ci mënta ne te xale yañ koy mokal inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la la hafizun hafizun ma ko akbar mota waje waxone hayhata بوك تي باتي غنا جافي تي القران غا خامني ني باري كوكو جانغوت تي سيرين مونوكو خام هاي هات لا يعتري القران تبديل وان تبدل التوراة وانجيل كل الذين رموا هذا الكتاب بما لم يتفق معه شرح وتاويل هل تشبهون ذوي الالباب في خلق الا كما تشبه الناس التماثيل فعصوا الاباطيل للقران وابتدعوا هاي هات لا يعتري القران تبديل وازروا عليه كما شاءت حلومكم فانه فوق هام الحق اكليل تقولون في آي مفصلة يزينها من فم الأيام ترطيل ماذا تقولون في سفر حائفه هدى من الله ممد فيه جبريل الله. آياته بهدى الإسلام ما برحت أه. تهدي المماليك جيلا بعده جيل الله. فآية ملؤها ذكرى وتبصرة وآية ملؤها حكم وتفصيل أه. إن هو إلا هدى للناس منبلج ضاح المسمى الله الاسم تنزيل الله أجيال وأزمنة الله أكبر أج أج أجيال وأزمنة الله أكبر الله تكبير تكبير بارك الرحمن تكبير الله اكبر اشرب شويه من الماء اشرب شويه فقط الله اكبر نعم في ب 2200 دون من صوفي القران الله اكبر الله يحفظك في ب 2200 دون كو صوفي تي خم خمو يامبار لوم جانغالي فك القران جانغالي نكو جوني اتك نينتي تيمر تي غيناو moo tax mbokk yi nañu profité ci alquran balaa addunaa tukki ku leen ko wax ak ku leen ko waxut balaa addunaa tukki xadis bu leer yonent bi nee na ci làmmeñu ibnu mas'ud la yusrayanna ala alqurani laylan la yusrayanna ala alqurani dhata laylatin فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت دينا مسخي بين جدي بين جدي dañuy tëdd nelaw ku ci nek am nga ay kamil sa keur daara ju nek ñu bàyyi fay kamil yu bari am ño xamne amna sar yu ñu mokkaloon dañuy xëy ken du mokalati dara nga lamb sa deun fekk alquran yep dem na iya nga yóotu sa kamil nga fekk mu nek ay page vierge الله fekk القران dem na asamaan adduna mooy waaj a tukki allahu akbar kon alquranu alquran saa yu jógee ci aduna aduna day tukki kon alquran mooy ruuxu aduna bii alquran moo defar ñu njëkk ña kon nanu góorgóorlu pour alquran man ñoo defar mm-hmm. moo tax waa ji waxoon ne yaa ayyuhal kalimul aliyu shaani mm-hmm. yaa man abata gayaahibal insaani mm-hmm. mu ne ko yaa ayyuhal kalimul aliyu shaani yow wax ji nga xamante ne sa lépp kawe ndax ca borom as aras nga jógee yaa man adata yaa fekk li gën a lëndëm ci kaw suuf nga leeral ko ghayaahibal insaani xam nga nit dafa lëndëm wallaay léeg-léeg nga dégg jigéen ñi naan góor a lëndëm te góor a lëndëm ñëpp ñoom ñëpp a lëndëm ñun ñëpp a lëndëm incha allah ñoom ñoo gën a lëndëm ñëpp ñoom kay yaa man adata ghayaahibal insaani fa bi dikri harfika tatmainnu qulubuna القران فوني لا جانغي سونو خول فيخ سيد نير وبعلم نحوك يستقيم لساني الله سخمخم نحو مير فتل تلير السنو لمن يا حسن أمن المسلمين وفخرهم يا خير ما نتقت به الشفتان لبل لمن تدو القرآن تجن قل فيا أيها العطشاه يا نرتبي ونعيش أمنا في ربى القرآن نمر بنك تبتي كايلن تداري جوتاي ينان القرآن ما كان من صواب فمن الرحمن وما كان من خطأ وعلى النبي وآله عليه ما حلل من أو حلل محرم السلام عليكم ورحمة الله تكبير تكبير تكبير الله أكبر